الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar leen ñaanal jàmm di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq defal ko mboolem ñi nga xam ñu ngi déglu kàddu bi ala kulli xaal in tey ñëw joxe lu am solo muy secret boo xam ne ko jëfandikoo yàlla mën naa dogal la ngay sàkk mën nga koo gis incha allah rabbi secret nag ci lum jëm ci wàllu dindi lu ñuy wax njabar ndax ku gëstu xamne jamono ji njabarante gi bari na lool ci kawsu njabar nit bam ñàkk palaasam njabar nit bam ko soxna wala bam ko jabar kërëm njabar nit bam febar njabar nit bam bàyyi palaasam njabarante yi bari na lool tektal bi nak ku neex man nga ko jëfëndiko fu la neex nga jëfëndiko ko lan la iza samsu kuwirat Euh, da ngay def nag bax da kulli aayatin bépp aaya bu jàll nga def way sa sixlu batalat ba isa sam sukuy jeex danga koy def nag juróom-ñaari isa sam aaya boo jàll nga def way sa sixlu batalat bu ko defee nga xooj ko ci ab soo nga boole ko sungufu xay wala xasum xay nga boole ko parfum yi may bëgg a wax nag parfum yi nak benn bi mi ngi tudd kafin kaf amna parfum bu ni wax kafin kaf ak bu ni wax royal bouquet. parfum yi nga koy booleel nga bol ko ndoxu géej sango ko juróom-ñaari fan même barab bi nga xam nga japp dañ fa sul ak njabar bam yaq sa boko fa inshallah rabbi nga wis ko fofu nonu sa bo xey ba mat juróom-ñaari fan diggante bi ngay def lool nak sa bo xey da ngay saraxé kilo muy juróom-ñaari kilo yi ñebbe juróom-ñaari fan ngay sangoo léegi di ko wis ci place bi juróom-ñaari fan di saraxe juróom-ñaari kilo yi ñebbe incha allah rabbi képp koo xam ne njabar nekk na ci yow gun defoon ci yow wala ñu ko sa place ala kulli xaal yàlla dina ko dindi ba mu set wicc njabar gi fu ko mën a def nag ci armeel ak ci géej ci guy guñ ko sànni nekk fu ko mën a def incha allah rabbi boo defee lii sangoo ko ala kulli xaal yàlla dina dindi njabar goog ba set ci yow te da nga nekkaat ko xam da nga denc lépp luy dindi gàllankoor. kon lu am solo la ci jëfëndiko ko xamni ak njabar da la yaq yaq sa place ndax njabarante ku ne xamna ni bari na lool yaqante yi bari na lool ci bari waaye ko defandiko li yalla yalla dogal dal liñ ci sakku nga gis ko lu faw ko si jortu imma nak ben nga bindal ko sa bop wa ila nga jox ni bindal lako waye nak koko ko jox malako bindal fexel ba xolam sedd waxuma nak ab dong bindal la nga kay yëkkati ay ñaar fuko diko ko waxul de yëkkati lu sedd xolam yëkkati lu sedd xolam nga jox ko ko xolam bu sedde li nga jëfandikoo yàlla mën na cee def barke ala kulli xaalin kon secret la ci koo xam ne laa njabar nga bëgg yàlla dindi la njabar googu denc yow incha allah soo ko jëfandikoo liñ ciy sàkku diñ ci gis lu faw ko suñu yor ci kàttanu suñu borom